waaw léegi da ngay expliqué waaw kañ. d'accord léegi xaaral kon est-ce que du ma photo yëpp envoyé la ko. waaw ah lii mooy wax par force. waaw du koy wan yeneen yi. mais xaaral ma xaaral ma wan la yeneen yi. xamoon la eh bàyyi leen sama jëkkër laay woon dafa xaaral looy woon léegi ñu dem léegi ñu toog ne toog ko mu woon koy tànnal ba tey euh, tonton Medoune maa ngi taxaw ak madame Cheikh Kouyaté première nag monsieur lay tànn lay nekk si kaw moom mënoo ko gis. Ah? Nike fi Adidas ani Nike Adidas Adidas ya Nike ya ina Adidas dama est-ce que du bi amel moo nekk waaw kay man dama gàtt moo tax jotuma ko da nga gàtt moo tax léegi def na choix wala defagul mi ngi def mi ngi def d'accord non Cheikh suma doom de la xam naa li mu ban ban genre nga ko bëgg a tànnal actuellement. bii laa koy proposé quoi xam nga ak yii. parce qualité yi waaw voilà même si qualité yi laay waxee quoi parce que yii dama ko jëlee pour xale jeunes yi moo gën a moins cher. noo def. maa ngi actuellement bëggoo wax mais tey il faut nga wax tournel am nga sama xarit nga def jox ma. mais ma baax doo wax kii ma bàyyi ma. non il faut nga jàkkaarloo caméra yi nag première dame. kontaan comme ñëpp rek ni ko ñëpp dundee. inauguration ba yaa ngi woon. Euh, fële stade. dem da loolu dara réew lan ngay wax sa yeneen jëkkër yi nga xamante ne ñoo nekk équipe nationale ñi nga xamante ne ñoo ay confrères yu Cheikh nekkoon mooy équipe nationale. ah ñëpp samay chéri la ñu góorgóorlu rek ñu dem jëliwaat euh, qualification yi coupe du monde fexe bokk ci ñu ràññee ñu ci coupe du monde bi rek bu ñu mënul jël coupe bi yàlla ñu ngi ñaan yàlla sa jël coupe. waaw voilà tey ñu gis ne sa inauguration wu jëkkër muy Mbaye Diagne ñëpp xam digganteem ak Cheikhou mu mel ne da ngaa yaa ngi tànn mais Mbaye moo la gën a xam yi bëgg non non man xam naa yi mu bëgg sax mais dafa tàng dama sonn da nga sonn tàng da euh, Adam Siglam Adam Siglam ma bien romb ko naaj bi mais instant daa mel ne a buur këram daa yëngal réew mi lan la ah, baax na ah. <laughs> ah du samay wax de Azena. Ah, réew mi yëngatuwul de. non loolu moom dinaa si ñëw mais nga ñëw na si relation Cheikhou ak Mbaye Diagne. waaw ay xarit lañu. Cheikhou dafa bëgg Mbaye def ko rakam te loolu dafa yàgg du tey équipe nationale boolewul dara boole leen loolu dafa yàgg parce que booy xool man yaa plus de 6 ans seeti woon naa mbay ba Chine kon xam nga relation bi yàgg na voilà donc ñoom ñaar moom dañu bëggante Cheikhou bëggul ku wax dara Mbaye dañu bëggante donc relation boobu la ñuy topp ba dem ba yaayam nekk sama xarit ay sëram ñoom Anta lu xew si man dañuy ñëw lu xew si ñoom damay dem voilà. mais relation Zara euh, tamit euh, ak euh, artistes yi lan la ak. artistes yi artistes yi foo jëm ñu topp la la. sama xarit lañu. da nga bëgg ambiance bëgg ambiance. loolu moo tax dama man moom. ñeeño laa dama bëgg ambiance dama bëgg. waaw dama bëgg yooyu. foo reetaan xam nga te ñoom dañuy dindi stress. moo tax ñoom ñooy samay xarit. kontaan naa bàyyi ma bàyyi la nga eggal sa shopping. ah d'accord kontaan naa. c'est ma belle. ndeysaan mooy sama tooma la moom it Jamila la tudd comme man Toma noo def. maa ngi fi maa ngi lay fay. maa ngi si jàmm. waaw ça ma gis na tey suñu inauguration boutique Mbaye bi Awa donc euh, Mbaye sama sama frère la euh, et vraiment ñu koy féliciter encore une fois ndax euh, lii nii à chaque fois rek day wane que ne du ci football kese et aussi par rapport à la macha allah donc ci boutique bi ma ñëw ànd ak sama mag Aïcha Diallo et vraiment mu nekk tamit une référence une fierté ndax Mbaye Diagne l'international ñëpp xam na ko ci côté football mais taxul muy promouvoir. démarre liggéey bi ubbi boutique boo xamante ne Sénégal Ndiaye macha allah donc euh, loolu tamit day gën a jàppale jeunes yi pour ñu liggéey. sa relation Mbaye Diagne lan Mbaye euh, sama frère la mën naa wax ndax euh, je l'ai connu à di Aïcha Diallo donc euh, mu nekk nag une personne gentille aussi humble et aussi di participer aussi sur la promotion des personnes en situation de handicap ndax Mbaye Diagne tey mën ne bu ma ko doon gis sollicité gis dafa facile et daf ma ubbil porte il a été vraiment accessible et du coup ma koy remercier waale dem encore une fois. parfois ma damay seetaan sa interview da ngay wax da ngay utiliser mot handicap handicap maanaam personne su ma koy déglu du ma neex parce que gisuma ko ci yow vraiment. donc non en fait euh, on, a tendance à utiliser ce mot parce que c'est un vocabulaire. Ah. Euh, personne ne peut le changer en fait. Donc il n'y a que la personne en personne qui peut changer ça. Et, et je pense que gis ngeen tuuti si samay activité maa ngi koy essayer di ko changer mais en en en nga xamante ne en activité. L'handicap c'est dans la tête quoi. et je veux même pas parler. Euh, waaw moo tax man moom sa fans laa dama lay suuf. man gis naa la yow yow yow man maay gën a nekk sa fans gis naa la yaa ngi def aussi lu nice vraiment. say projet actuellement foo toll. donc euh, ñu ngi si ñu ngi si vraiment ñu ngi si et il faut que may may may kii yéen yéen journalistes yi da ngeen muus instant yi ñu ngi nekk si déjà euh, si projet association pour les personnes en situation de handicap ñi nga xam xamante ne dañuy gën a promouvoir euh, les personnes nekk tamit ci ci ay projets yu bëri waaw. jeex na ubbi na la suñuy porte ñu soxlaa rek ay tamit. merci encore une fois c'est vraiment gentil. waaw merci. merci beaucoup Jamila. merci lan nga wax sa fans yi nag. donc du ma wax samay fans sax damay wax ne samay xarit lañ ñoo xamante ne peut-être dañoo bokk gis-gis ñu baax torop aw ma seen fay et macha allah donc euh, li ngeen bëgg si Jamila yéen ñoom ñoo may dooleel en fait ñoom ñoo ñuy dooleel di ñu encourager merci beaucoup ma leen di wax ne euh, à très bientôt avec euh, de nouvelles projets de excusez-moi de nouveaux projets donc ñu ngi si maa ngi remercier toutes les personnes qui me soutiennent de près ou de loin surtout Aïcha Diallo mi nga xamante moom laa àndal tey merci. merci.